jàppale dooleel Cambérène ci projet ak programme yi ñu am nañu yaakaar ni xaw ma keneen nekkee ville de Dakar ñun duñu paate maire de Cambérène wax leen la. duñu paate maire de Cambérène pare ngeen. duñu paate Kiñaan Abdoulaye Diouf Sarr la wa kaw Abdoulaye Diouf Sarr seeta wa donc monsieur le ministre dañoo bëggoon wax ni Cambérène pare pour porter haut la coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo bëgg une victoire sans pareil sans égal dans le Sénégal dañoo bëgg monsieur le ministre nga am assurance que Cambérène ànd nañ pour fal la def de le prochain maire de la ville de Dakar su ko defee incha allah monsieur falee mu ànd ak Doul Pathé ñu yeesal Cambérène donc Dakar bu yees ak Abdoulaye Diouf Sarr Cambérène bu yees ak Doul Pathé Mbaye donc monsieur le ministre ñu ngay dalal di kontaan di fat nga ñëw fii seet si say mbokk seet si say xarit seet si say am di jàmb mais seet si ay kilifa yi nga xam ne da nga leen teg fu kawe muy les marabouts les les autorités religieuses de Cameroun, ils sont prêts à se battre pour que nga am une victoire écrasante au soir du 23 jaajëf. maa ngi nuyu xalifa général des Layènes di ñaan yàlla mu yàgg fii wér lool yàgg mangi wax ne tay wax deug yalla légui campagne bi jeex mais mobilisation bi ñu gess fi ci Cambérène gisuñu ko ci ben commune kon Cambérène jël le record de la mobilisation je suis sûr que le 23 janvier Camberen de le record du résultat Mangi remercier remercier Bouba. madame yaye remercie. Je vous remercier remercier les amis de remercie Mangi vous remercie, jël mag soxna astulay nga joxal mako wa Benno Bokk Yaakaar yeb la grande coalition de l'unité une coalition bo xamante Benno Bokk Yaakaar moo porté moom moo wax de manière unanime les seuls candidat filles ci Cameroun c'est le prochain maire de Camberen Doul Patembeng. Mais la même coalition de l'unité portée par le Benno Bokyakar, parce que Benno Bokyakar, mon gobot, mon nez, c'est le candidat à la ville Ablaï Doussa, le Toulouse. bonne coalition de l'unité il faut ñu wax leen mooy La coalition de l'unité physique qui les kilifay Cambérène Nous connaissons, le président Macky Sall mais ko n'importe quel que ce Sénégal Cambérène le la boo xamante ne mooy le Cambérène dëkk la boo xamante ne dafa kilifa yu wér moom seen baat ñu ne président bàyyi ñu ñu dajeeg suñu njaboot tànnal la kenn jox la ko président leen dellu naa gannaaw lu ngeen def rek noonu la ñu dajee tànn Doudou Pathé Mbeng président ne leen yéen waa Cambérène yéen a tànn Doudou Pathé Mbeng mayo Benno Bokk Yaakaar mu ngi nii jox naa ko ko na ko sol kon nag Doudou Pathé Mbeng coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko tabb tabb Abdoulaye Diouf Sarr ville de Dakar kon waa Cambérène bulletin bi benn la du ñaar bulletin bi moo yor ngërëmu kilifay Cambérène bulletin bii ku dégg ndigal si Cambérène moom ngay voté bulletin bii li Cambérène ñaan Macky ba mu may leen ko si bulletin bii lañ koy traduire maa len leen di demander waa Cambérène le 23 janvier ngeen dëgëral Cambérène mooy jox ko une majorité écrasante da nga xamante ne moo may kilifa yi ne leen dandaleen ku leen neex seen dëkk seen dëkk yaay na ko moom bu siggee xool résultat Cambérène dana a ah, gàcce ngalaama ñi kat liñ doon ñaan jar na ko kon nag ma am na lu ma dégg sànq ngeen way ko laa ba ngeen yëkk ko ndigal la ñuy woyee Valeu!